On commencé, euh, bon, les assises de la justice, conclusion, et même on, l'a, on les a remises euh, au, au, président euh, Bassirou Diomaye Faye. Euh, justice bi assises yi am na jam ñaajoo waxtaan nañu xool nañ appliqué boole nañ ci ñu ñu bëree bëri am na ay recommandation ñi ngi xaar ba xam fan fan fan fan fan lañ ci jëm mais au même moment on constate que pratique yi fi nekkoon ba tey jugu fi parce que on entend le premier ministre parler euh, de son de, de ces échanges avec le, le ministre de la justice garde des Sceaux on se rend nettement compte que la rupture bi ñuy wax euh, eggaguñ fa lan moo koy expliquer les mêmes pratiques yi fi nekkoon ñu bëgg ko xeex mooy indi loolu ba tey wala ñii aussi par rapport aux pratiques qu'il dénonçait ci loolu lañ lañ nekk. waaw waaw merci Maodo foofu tamit damay dellu si rek xam nga j'avais un prof de droit privé judiciaire qui me disait un jour que quel qu'en soit l'esprit d'une loi. son efficacité dépend en grande partie des personnes et des institutions qui la mettent en œuvre. Quel soit l'esprit d'une loi. L'esprit d'une loi peut être bonne, mais, les institutions et les hommes qui la mettent en œuvre, ils ne sont pas à la hauteur de cet esprit de, loi, ces lois-là. Donc, c'est une erreur quand même. Euh, de xëy na bu si biir waxtaan mu waxee loolu mais je pense que ça c'est que lu normal. Mm-hmm. le ministre de la justice bu ame lu muy def pour xam ndégam lii war naa am poursuite wala warata am poursuite bu waree am poursuite mu def poursuite bi et je rappelle que euh, quand euh, benn moment au moment wu mon frère Ousmane Sonko était au niveau de l'opposition ba ñu fi suscité ay wahhabite la ak ay li islamiste la des trucs comme ça def naa interview Walfadjri ñu may wax ma ne ko si j'étais le procureur la République mhm. c'est-à-dire que ku fi wax Sénégal loo ko warut loo warut a wax nit dinaa la jàpp dinaa la topp à l'époque la waroon tàmbali. voilà danaa la jàpp naa la topp. Mhm. donc moom loolu mooy rôle am. bu jàpp sentir nécessité dafa war a jàpp mu dem jàpp. Mhm. ñu topp ñu instruire ñu xool bu nit ki faute ñu sanctionné ko bu faute ñu bàyyi ko mu dem. loolu moo am solo mais on l'a pas nommé ñu ministre pour muy demande des ordres. Mhm. parce que bu boobaa non sens c'est quelqu'un boo xam ne ñu bëri amoon nañ ci moom yaakaar vu son parcours ak fi mu fi mu jaar yëpp Ousmane Diagne bon écoute tu sais la vie est pleine de surprises <laughs> mhm. <laughs> la vie est pleine de surprises ah, les premiers pas